salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu sama sama sama sama kilifa yi waaye ñoom li sama nuyu ak ñoom ab siyaara lay doon maanaam dama dama dafa nuyoo dafa mënut a rek waaye man daal li ma li nga xam ne moom laa doxalee sama dëgg ñoom ñaan moom maa ngi leen di saari ñoom ñëpp nag li ko tàmbalee ci ki nga xam ne mooy sunu kilifa di Serigne Touba ci kaw suuf fi toll muy Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool ba li nga xam ne moom la bëgg a liggéeyal Serigne Touba bëgg ko liggéeyal ci yoon wi ak lislaam mu <coughs> lépp mu def ko lu siyaare sëñ Abo Mbàkke bu baax mi nga xam ne moom it mooy sëñ falu ci kaw suuf li ñaan mu yàgg fi ba li mu bëgg liggéeyal sëñ Fallu mu mu yeggale ko ni mu ko bëggee li ñaanal mboolem njabooti sëñ Tuubaa yëpp te samay kilifa ak ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk ñoo nekk ci liggéey bi rek ehm, sëñ boo it bi ma ko nuyoo ba ko maa ngi maa ngi ñaanal rakkam yëpp ehm, yàlla doon leen taxaw di ñaanal murid yi ak taalibe yi mooy murid yi ak lislaam bépp ak senegal gépp lii nag li ko andi mooy Euh, mën naa ko mën naa ko tàmbalee sax ci euh, Alaaji Fall mi nga xam ne moo man sa wax ne bëgg na ma mën a bind fekk ma ma suñ xaar di dem nam daan def di ma fay yóbbaale waaye yoon woow nga xam ne euh, sama dem jàngi jot na man fu mu yoon bu fu mujj ànd ak seen xaas daf ko ne ba mu waxee li mu wax lépp ci man daf daf la fa mujj daal mooy bëgg naa mu mën a bind loolu la wax seen xaas euh, seen xaas ne quoi kon de dana ko man yow de loo bëgg yàlla def ko ma dem ba bi may bi may bind kaamil sax boobu fekk na sëñ bi euh, wàcc na liggéey waaye eh, fii la mu ko doon fii la ci ci kër këram gi ci jumaa ji booba sax dëgg-dëgg ndawe naa ba ni ma ni ma demee ak sëñ xaw ma ko ndax sëñ Fallou sëñ xaas dem na fa ay yoon di ma fa yóbbaale te xaw ma nu ma demee moom waaye li ma daan yëg daal mooy. bu ma daan dugg dem ci kër gi daal di entretien xaar moom bu ma duggee ci kër gi dafa mel ni ku ragal kër gi bu ma ko gisee moom ci boppam it xaw xaw ma ko waaye dama ko dama ko ragaloon boobu Sëñ Fallu te xaw ma sax na mooy sama waajur waaye saa bu ma ko gisaan rek damay mel ni ku am ku am ku am tuuti njàqare ba ci keroog boobu mu wax sëñ xaas naan ko bëgg naa mu mën a bind keroog daal laa xalaat ni daal lu lu tax muy wax loolu ci man daal xam nga lan la ci laa tàmbali di xaw a xalaat tuuti sama diggante moom ba ni ma xamee ne mooy sama waajur mm, wax naa la léegi ne la bi may bi may bind kaamil boobu sëñ dem na waaye fii ci kër gi ma ko doon wax fi laa fekk sëñ Mourou Bousso kaamil bi ma bi ma jëkk a bind moom ma ma di ko ko jox moom laa fa ma ma ma ci kër gi laa ko fekk bi bim bi nga xamee ne mag ñu bare nga foon keroog moom laa mel ni mag ñi kenn desul dañ leen a woote yegguñu woon sax ne daanaka xam naa noonu ñu daan def nga xam ne c'est pour sëñ bi ne rek ñu ne fa yàlla dogal nag euh, keroog kenn desul sëñ bi daal di jël téere bi xool xool xool daal ma. yow de sa sa baay Maodo Moustapha rek laa gis ci ko ko koo nuru ci xalima loolu wax ma daal di xam ne kon li sëñ bi bëgg na ma mën a bind mu ngi tàmbali feeñ xaw ma nag lu xaw ma sëñ biram moom moo xam ma dem nag ba ndax sëñ bi 68 la dem man suma kaamil boobu may wax tamit jox naa ko sëñ Modou 69 laa ko bind ca Daaru moo tax ma sant ci bu baax bi nga xamee ne tey sirul asir Cheikh Ahmadou Bamba wax na ci li mu fi wax lépp bind ci barke Alaaji Falilu Mbàkke ak i waxam ak man-manam léegi wax naa leen soixante-neuf laa laa bind sama téere bu jëkk bii tey siir bi maa ngi ko bind soixante-quatorze maanaam diggante bi may bi ma bindee sama téere bu jëkk boobu ak bi may bind tey siir bi juróomi at la li ma ci bëgg li tax ma di wax ma ci bëgg a xam ne mooy Taysir bi nekkul sama loxo ca ba may ba may bind dëgg ndax xam nga boo nekkee ci daara euh, amoo benn itte bu dul bind ay sotti xalimaak bindi téere rek bindi ci bind rek mooy sa itte loolu day da koy man ndax moom rek nga moom moom nga xam bokkut ak nga jóge ci daara ja lu mat juróomi at nekk ci big yeeg bindantu yeeg am yeneen soxla yu nekk sa bopp yu ndax ba ngay ne ci daara ja alxuraan ji ak ak mbind mi rek mooy moo nekk sa bopp waaye boo ci jógee nag ba ñëw yooyu yeneen da ci bokk yooyu eh, day wàññi lay euh, wàññi ak mën a bind ci laa ko bindee waaye kii bu fekkoon ne mi dana dana yéeme dana nag bi fekk na booba daal sama loxo ngi wàññiku man xam xamal naa ko sama bopp waaye ma ne rek lu sama loxo wàññiku wàññiku wàññiku lu ma lu ma lu sama mën a bind wàññiku wàññiku lu tee danaa ko def ngir booba sëñ Modou Afis moo nekk moo yor barabu sëñ Fallu ma ah, mel ni tey sirul asida yi ba ma ko bindee ñu yóbbu ko ci barabu sëñ Fallu ñu di ko boole ci téere yi ñuy jàng dana am solo ci ko bindee yónnee ko sëñ Modou Afis na ma ko booleel ci téere yi nga xam ne dañ koy jàng ci barab bi ba boobu laa ci gëj wax dara ba ci jamono yi weesu war naa mat juróom benn weer sëñ bi sëñ Moustapha mi nga xam ne mooy mooy doomi sëñ Modou Afis euh, te nga xam ne euh, moo moo moo moo moo fa nekk moo fa nekkoon mu mu ñëw mu ñëw fii seetsi ma muy waxtaan waxtaan ba yàgg ma ne ko waaw man daam na benn tey sir bu ma bindoon yónnee ko suñ sa waajur ngir ñu boole ko ci téere yi ñuy jàng foofu ci barab ba suñ Moustapha ne ma ma ngi fi ma ne ko ah mu ne waaw mu ngi fi téere baa ngi fi de ma ne ko nu mu demee mu ne ma téere ba daal dañ koo jàngee jànge jàng bu nga xam ne pegg ya dafa dagg téere bu màggat waaye nag yàlla dogal na benn araf dañu kii ba mu melee noona nag ma ma ma ma ma plastifié ko ma nga fa dem nga ma dañ ci ga ma ne ko ma mën naa ko gis ca suba mu andil ma ko ma xool ko ma ne léegi gannaaw man mënatuma bind léegi te lu gàtt gàtt sama mbind daal war na war na feeñ tuuti si la ko wax mu daal di ma koy andi ñu daal di ñu daal di ñu man daal di koy xool daal di koy jox sëñ Mbàkke mi mu dem sottiwaat ko ci kii machine yooyu ah photocopie ba nga xam ne euh, kayit yi yeesaat na man ne kii daal nañ ko naa ko fexe mool am na fi sax ñu wax ne yi dañ fi ko xam ne mool rek la liggéey moom da ko man yàlla dogal ca suba sa xaw ma ci gannaaw suba sa mu ñëw fi gis ko rek moom ne ma ne ma kii kay ma maa koy mool waaye euh, taxul booba ma ma daal di ciy sóobu noonu dama ne tekk rek benn bis ma ñëw fii ci euh, salle bi rek ci ci ci ci soog ci fëtëy bi gis fa këyit boo xam ne xam naa ne bu fekkonte ne day këyit buñ teg fii tegin bu kii sax dama naan dañ ma ko fee tegal xëy na waaye kayit la wax ne dafa dafa dafa euh, dañ koo baxañ ba nga xam ne daanaka mu ne ci biir kayit léegi euh, te adresse euh, bi nekk ci kayit woowu ki ko ki ki ba kuy kuy mooli téere la ñu di ko wax sëñ Mortala Diagne moom xam naa ne xamul woon sax ne bind na xamul woon sax ne ne ne bind naa téere wala bëgg naa amul lu yàlla dogal la rek moom nag ci la dal di wax euh, sëñ euh, sëñ sëñ sëñ Galas euh, Jatara ne waaw kii ma wan kii ne lii xam nga ko lii di mu ne ma ah, nañ ko téléphoné nañ gannaaw numéro baa ngi ci daal nañ ko woo sëñ Mbàkke ñaa naa moo ko moo daal di jël woo ba jot ko ma ne ko na fi ñëw mu ñëw fi xool dal di ma ci wanu ak yombal lool ak mbaax ak taalube waaw kii kay sëñ bi mën nañ noo ko bëggee rek mën nañ koo defee noonu nu dal di ci waxtaan ma jox ko mu daal koy liggéey ba mu ba mu mel ni mu mel loolu daal mooy mooy mbirum téere bi euh, xam naa ne moom léegi nag téere bi lu euh, téere bu ñuy jaay téere bu ñuy jox àddiya la léegi fi mu li ma nar mooy jox ci sëñ bi sëñ Tuubaa sëñ sëñ Muntaxa ak e, sëñ Yabo ak ñi nga xam ne samay kilifa lañ rek ak taalibe bu ci yàlla def nga ne lépp nag ci lii mu mu mu Mor Talla Fall mi nga xam ne mooy borom e, Benno FM lépp nag moo ko moo koy moo koy doxal moom moo ko moo koy yombal moom nga xam ne. jëkkewul ci téere bi ci suñ diggante wowuma ko nii ngir téere bi dafa dafa am rek ma ma ma seet ku ma ko war a woo ko du loolu moom dafay dafay dëkk nu bokk fi dëkk ba lii agsi moo tax moom nim ko nim te ma wóolu ko nag ci eh, ay doxalinam ay waxinam ak bëgg sëñ Tuubaa ak bëgg xam bëgg lu baax ak Euh, lépp lu muy lu muy lu muy lu muy lu muy wax ci rajoom di wax joo xam ne jii rek wax juy defar la wax juy dimbale nit la muy saawaay loolu moo tax bi bi bi bi jotaay bi waree ak siit it ma woo ko mu ñëw ma ma ne ko léegi nañ seet kii bi wane ko ndax euh, lii de lu lu lu jëkk bëriwul téere yi nag bëriwul fi ne Euh, lañ ko def yoon bu njëkk nii rek ngir ma doon seet ba xam nu muy mu mën a deme waaye nag danaa ci mool lu bare bare bare bu soobee yàlla mool tàlla dana ci liggéey lu bari yoo xam ne ni hmm. bii mooy bu ndaw bi ñaar lay ñu ci def bu mag ak bu ndaw bii mooy bii mooy bu ndaw bi bu ko la demee waaw waaw te lépp ko yàlla defal yal na ko yàlla defal tey siru mm, na moom kii mane waaw moo tax ba mu bëggee eh, eh, tuyaaba ju ju ju wóor a wóor ma ma ma tànn ko xam itam barabu sëñ lu mooy fan ma yóbbulu ko fa te loola it damaa toog rek ba xam ne xam nga yoonu yoonu sëñ moom boo ci nekkee te bëgg ci ngërëm su xel du toog lu la ngay xalaat ci lu lay lu la cay may dara ci ngërëm ci sama xal di def nii rek moo àgg ci xam ne loolu mën naa ci jële dara tey siir bu ñu bind yóbbu ko ci barab bu sëñ Fallu euh, ñu di ko fa jàng loolu bokk na ci mën a may ab taalibe ngërëmul yàlla waaye sëñ mussaa mi nga xam ne nag moo moo mu tam moo waggar di waggar ndax loolu yàgg na sant ko te sëg léegi yàgg na ñeent fukki at ak ñeent euh, moom mi mu waggar di waggar ba mën a jotaat sama loxo ba mën koo mool nii gërëm naa ko bu baax waaw te eh, naa ne eh, la nga ci am lu ma ci ci pay rek da ko ci am ndax ndax téere bi itam mool gi li ma ci jublu mooy ay tuyaaba rek nga xam naa ne eh, mbind mën naa yàgg mën naa yàgg ñu di ko jàng ci waxtu yu ne ak foo xam ne fii yàgg na fa too ko xam ak foo xamul foo xam ak foo xamul mën na faa yegg ñu di ko jàng loolu yi ñuy wax ne garab boo ko eh, la ciy jóge mën na faa des ab ten noonu yooyu ñu koy wax noonu rek waaye na nag lu Sëñ Tuubaa waxal ko xam nga Sëñ Tuubaa kon daal jërëjëf